واجبا دايلا ويا ما خسر الانس والجنين رسول الله اليكم واجبا دايلا ويا ما كرم لا سينغو sa kër samay xarit ngeen de waaye am na fu ñoo xam ne ay saytaan la duñ dara genre Pape Maguette waaw Pape Maguette waroon ñëw laaj la mu bu max ma ne ma demal jàkkaarloog liiru. saytaane la. na ngeen def maa liiru jaan 142e appel Seydina Limamou Laye liiru jaan nga teew ci bës gu tedd gi wuyu si sa wëllëre Chérif Abdoulaye Thiaw bu Serigne Mor laay wéy juróom ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu ne ko fa mu jógee alors liiru sa teewaay ci bés bi. waaw wax nga lépp wax nga lépp ndax man. Mhm. soo nee Laye Makhtar Laye. mooy Laye Seydina Issa ndax loolu nga wax noonu kooku sama xarit la sama lépp la sama sëriñ la sama xarit la waaw waajuram ñoo ngi koy ñaan yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw te rafet nañ ci njort xam na ne ma nga àjjana euh, beneen côté bi tamit ma am sama xarit muy sama wóolare muy sama lépp muy kan Ibou Seyni Laay Laay Maxtaar Laay këram laa jógee léegi ñëw fii muy sama xaritam di sama wóolare comprendre kon ñun ay taalibe amuñu fenn sens interdit amuñu fenn sens interdit. blanc nga sol mel na ni wane na ko jàmm nga woote Ablaye Euh, su euh, blanc lan moo waral laay Maxtaar laay laay naa Issa. liru décortiquer lu blanc bi. xam lan moo waral blanc bi. laaj naa la euh, damay lan moo waral blanc. laaj naa fii tey koo fi gis rek. blanc la ndax ki xewle. ki xewle mooy kan. ah xamoo ko. laaj naa la <laughs> ki randal géej gi. déet waay nekkaa leen dëkk. Ah, waaw waaw. laay Maxtaar laay laay Seydina Issa laay laay laay Maxtaar laay. sama waa ji maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal. Ablaye Thiaw sama xarit la sama lépp la sama moom invité fii tey ma teew ah fekk fi tamit doomu ndeyam baaboo yi fekk fi ay kilifa sëñ si sëñ Babacar ma fekk fi ay kilifa yu bëri kon nag sant yàlla baax nga am solo. liiru dafa mel ni baax am solo nga baal ma mel na ni tey bésu tey ji ndax da nga ciy jaaraale jéggal képp ku la tooñu sëñ bi li nu indi fii la ñuy wax dañuy sàkku si ay ñaan dañ sàkku si ay ñaan rek yéen ñëpp yal na yàlla defal jàmm yàlla na ñëpp am jàmm waaw yàlla na ñëpp am jàmm kàddu gu kenn lu bon yéenoo ma kenn lu bon damay gis ne léeg dafa mel ni nit ñi duñ la comprendre ah, te liiru ku ko xam-xam ne ni dafay bëggal askan wi liiru lan moo xew ba ñenn ñi ñàkk laa comprendre ñàkkuma ful la nag ñàkkuma fayda nag ñàkkuma ful la ñàkkuma fayda ku ma war def loo ma war ta def <laughs> yoon am na fi wala ma fayal sa bopp mën naa fayal sa am na fi mais da nga fas yéene dem ci yoon. ngir topp wax wax baaxul nan bàyyi noonu rek wax baaxul yàlla nanu yàlla defal daam dañoo ñëw ci appel bi tey sunu xarit sunu sëriñ yu baax yi invité ñu ñu daal fii ñëw teew yàlla na leen yàlla defal jàmm. sa kàddu gu mujj ndax réew mi léeg-léeg mu yëngu rawatina léeg ci këru diina yi waaye mel na ni tey ñëpp daje fi ràññeewu ñu ku ne la nga gëm. ma ne sa kàddu ñun. këru diina yëpp këru diina yëpp benn la. këru diina yëpp benn la soo ñëwee fii yaa ngi fekk fay tiijaan bi murit bi xaadar bi tout Layeen bi ñaseen tout nga dem kër mu Seyni Laay fekk fa ñëpp murit beeg Tijaan beeg xaadir beeg Layeen bi loolu yëpp sant yàlla mooy wane kër diine yëpp benn lan yàlla na fi jàmm sax Sénégal yàlla na jàmm sax Sénégal yàlla na nu yàlla defal jàmm yàlla na nu yàlla defal jàmm ñu ne yàlla na nu am jàmm ndax jàmm si lépp xaj di gërëm soxna ab sa ndaw fii ci kër gi tamit ab sa am sa ndaw am sa ndaw ndax man ma invité man xattu ñëpp laa man aw ma fenn noonu. liiru ñëpp la mel na. billaahi wala man bëgguma kenn me waaye yàlla na yàlla dafa jàmm waaye yàlla na yàlla defal jàmm waaye jërëjëf baax la jërëjëf liiru ajibo dayala oyo yama xasaral insi wal jinni rasulullah ilaykum ajibo dayala oyo yama